sango gumba soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. sango gumba TV. <laughs> ñu gis ne seen série bii di doomu góor suñ ko dugalee même pas 24 heures nombre de vues day ëpp nombre d'abonnés. loolu dafay tegtal ni ñii seetaan vidéo bi te abonné wuñu moo ëpp ñi abonné. ma bëggoon yow mii di seetaan vidéo bi.

Suivez la chaîne Sangoguma TV. Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV. La fin qui vous ressemble. La chaîne qui vous ressemble. La scène qui vous ressemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. bërki dem feng ma ci Allah ba may doxantu nga dima waxu may sa Fatima ba dima yabal ci jaraf bul fatine barki de mo nyaay nga fi ñëw ngay lëj mbët ak xol bay xam lu jaraf di def ak lu mu def ba nga dima yabal ci jaraf man ci sa diggante ak salimata bi fim fi mu ne nag jël ci sama matuwaye bop xaaratuma buur xaaratuma doomi buur xaaratuma soxnas buur des na la ko may ak nuñ la ko may waaye li nga def bu ko buur yëgee mbaa doo ci am ay jafe-jafe déedéet buur xalaatuma mu yëg ko naanewu kom ndox yëgu ko fenn fenn soo taxanee ma yanoon la ko bu ñu ñëw taxani waaw <laughs> gëj naa koo def sutura gëj ngaa taxani loolu lépp léegi demba wàccal na ma ko nga ni demba mi ngi ma koy defal ci mbaaxam wax dëgg yàlla demba demba waaw demba moo lay taxanal di andi fii waaw may sa fatima yaa ngi bàgg rek noo def maa ngi sant bu baax li nga baa yaa ci jàmm sant bu baax a baax yaa rek xam naa li ngay bàgg lépp waaye damaa bëgg nga dalal sa xel rek. buur daal may sa Fatima moo fi ñëwoon daw yóbbaale tooroodo loolu nag moo metti buur lool ba tax buur woote ab xare digganteem ak waa fukki bunt ngir faat leen ba nu xam ne du seen moroom. ah li ngeen aw naam mbaa yëg nga ne dëkk bi yépp daw may sa Fatima gi lañu waxtane ha sagar nak, teji Jaraf. ba yaangi baye xel may sa Fatima bam demé ndayan ba légui mi ngi bëgg yaag xamuñu ci lum nekk mo sama tanki tay ginnaw ya, yor kaaraange dëkk bi nga xol ndax sa Fatima mi ngi si jamu wala déet Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.